bu dee wàllu école yi ak daara yi xam ne école yi dañ koo tëjoon te ñu ngi ci coowal tijji ko fii lu toll ba jàpp nañ sax ay waxtu yooyu te dégguñu ñu wax lu mel noonu ci daara yi te ni ñu tëjee woon école yi nag buur a ko tëjoon buur a tëj itam daara yi daara yu bari tëj nañu leen yenn yi ñu jël ay xale def leen ci ay woto yóbbu leen comme ni ñu ko waxee dégg ngeen ko ci kii yooyu yëpp daa xam nañ leen dégg nga euh, kon bu fekkee wàllu tijji nag jot na damay jàpp ne matuwaay yi ñu war a jël ba école yi taxaw ñu mën a wéyale sinam njàng war nañu jël matuwaay yooyu itam ci daara yi waaye fi ne rajo boo jàpp école yi ngay digg ci wàllu tijj waaye du digg eh, daara yi ci wàllu tijj te tëj moom ñëpp lañ ko defoon kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la euh, lañ ci gis nag ci sunu wàll mooy état bi jël ay matuwaayam ndax école yi ak daara yi bokkul école yi xale bi day génn amaana dox ay kilomètres dugg ci ay watt dem delsi door dem ci école ba door dem ci këram daara yi xale yi ñoom génnoon danoo toog ci daara yi ma jàppoon ne organiser woon daara yi moo gën a yomb sax organiser école yi ndax ki toog benn barab di fi sàkkoo li mu fay sàkku ak kii gàddub saagam di yéeg ko wàcc ba àgg dem dellu bu ñu dee moytu mbas ak moytu jàngoro am na ko ci gën a sax yelloo moytu waaye nag jël ay metukaay ak ay taxawaay def ko damaa war a damaa damaa jàpp ne ci daara yow ndax ñëpp nag doomi réew mi dañoo war a taxawu dongo yi taxawu daara yi seen kem kartan ginnaaw bi mbas mi amagul dañu la bàyyi seen lépp ñu yelwaan door a lekk yelwaan door a naan yelwaan door a nangam sonn door a jàng seen bu mbas mi amee ñu occasionné wu ci dem profité tëj leen bu tijji école yi jotee nag na tijji donko yi donc bu ñu yeban cib kaar delloo ko ñu yebaat ko cib kaar indiwaat ko ca daaraam joojee mu continué jàng bu dut loolu dootuñu gis ne mbas yi moo waral ñu tëj école yi wala daara yi bokk dañuy gis ne maanaam ay organisation la yoo xam ne yàgg nañu am yéene ji di ci xeex xëy na laxasaale ko ci biir mbas mi rek ñun loolu la ñu gis booba fu ñu jëlee woon ab dong ñu dalawaat ko fa